allo asalaamualeykum dama ñëw pour def benn vidéo bu ndaw pour wax leen ne euh, suma TikTok bi dañ ko dañ ko ida dañ ko report obviously ba nga xam ne ni dañ ko ida tëj wala suspend ko whatever the word is waaye gars yi dañoo message woon ma sa TikTok bi dafa suspended but follow leen daal foog naa su ma leen toppee di leen email naa xam account bi baak look naa la wax waaye daal duma si ràng loolu yëpp dama yibbi bu xeese bu tudd Ami Jobe no Ami Jobe Ami Wolof two yeah tey ba tey maa ngi sonn jógee si exercise bi may def fan yi fan yi suma exercise bi guys oh my god so um, dama ko dee post si Ami Ami YouTube channel bi foofu noonu english rek laa fa bëgg di post léegi ak soose dinaa fa post vidéo soose tamit maa ngi fay post exercice yi may def bu ma ko tàmbalee woon lu yàgg tamit dama ko daan post foofa waaye fii semaine bi incha allah li ko dalee lundi waaw li ko dalee lundi ba xalarba wala lundi ba talaata sorry lundi ba alxames damay dem exercice te su ma exercice daal dinaa ko post fii ngeen gis dinaa post. Um, damay record semaine bi yu ma def clip yu ndaw waaw ma boole ko ma puusal leen ko su su semaine bi jeexee weekend bi waaw comme ça su ma defee ñeenti fan exercice yi yëpp daal incha allah ma puus ko ngeen gis li may def si biti pour motiver yeneen jigéen yu mel ni man rek te bëgg wàññi yaram you know waaye vidéo bi tey pour wan leen ni ngeen di massager seen xarxanam bi la um, su fekkee ne ngeen a xam um, yaram si xarxanam bi comme saa boo xamee yii suma bos mu ngi wàññeeku trop léegi ndig bës yi ma koy bés also because maa ngi xoor suma ma xëyee duma lekk ba fi mu ne nii ñeenti waxtu mooy jot si so maa ngi def ganaar yi si chicken bi te ganaar buñ lakk la ñuy reeree um, mu ngi lakk fi mu ne nii su loolu pare su ma lekkee duma lekkaat ba suba si waxtu bi you see so ya léegi tey mu pare boot vidéo bi ten minutes rek la su paree dem génnee ganaar yi incha allah so lekk naa jos naaw kaasi café bi mm-hmm. uh, lekk naa ko léegi nii matagul waxtu daal si laa dagg xoor gi ba pare gerte gi nii fii la xemoon soo lekk naa si lu xem nii gerte tubaab yi almond nuts walnuts si jaxasoo and then lekk naa ñaar wala ñetti tàndarma mu des benn foofu dama koy bàyyi bugguma lekk yëpp parce que bugguma suur su ma suuree te maa ngi war a lekk si ganaar yi ganaar yi dama koy def ak salade parce que xam na pomme de terre ak carotte waaye tuuti pomme de terre la ak carotte so um, dama koy def salade and then def pomme de terre bi nga xam ne moom laa lakk ak ganaar gi you know so um, so yes ma yaram bi si laa ne di wàññi te dama ko dee wax jigéen ñi nga xam ne ñu ngi mel ni man bugg a wàññi yaram ma wax leen nu ma dee def te dama dee ñëw tamit di wan nit ñi soo buggee sa xarkanam bi rafet nooy def so um, obviously soo buggee sa xarkanam bi ak yaram bi rafet bu nekk di diwoo eni diwi xeesa ba pare da nga nekk di naan ndox bu bari mm-hmm. ba pare na nga lekk lot of fruit and vegetable comme ça tey bu mu xëyee nii lekkuma ba ay benn waxtu tey dama teel a dagg xoor gi benn waxtu bu ñu jotee ma xiif parce que démb dama teeloon a reer démb foog naa xaw ma ñeenti waxtu laa reeroon xaw ma carrément ba waaye daal dama xiif daal parce que exercice ma def démb dafa bëri ak bërki dem démb fan yi daal lu may def dafa bëri soo su ma yaram bi su xiifee du ma dee forcé may xoor rek xoor bi da ngay nando by the way nekku ne ngay xoor comme xoori weer ko Um, boot moo tudd intermittent fasting intermittent fasting mooy comme ça yow boo xëyee doo ndéexoo doo lekk ba ay benn waxtu ñaar wala ñett wala ñeent def na si yow daal wala juróom wala juróom-benn wala even bu la neexee juróom-ñaar wala juróom-ñett waaye nag da nga gis yow time bi nga lekk noonu feeg waxtu wu noonu dellu si wala muy waaj a dellu si doo lekk comme ça lay da nga war a toog juróom fukki waxtu juróom-ñett ba ñaar fukki waxtu. yoo xam ne doo lekk naan ndox rek ngay naan mhm. waaye nag waxtu yi ngay nelaw fa si bokk soo doon worry waxtu yi ngay nelaw si la bokk comme ça tey su fekkee yaa ngi lekk juróom-benni waxtu waaw juróom-benni waxtu xam nga ba juróom-benni waxtu suba xam nga loolu mooy fukki waxtu ak ñaar nga def juróom-ñaar juróom-ñett juróom-ñeent fukki waxtu si suba. Mhm. fukki waxtu léegi mooy ne ñaari waxtu yële ak bii mu léegi nekk na fukki waxtu ak juróom-ñaar mun ngaa lekk su fukki waxtu suba wala fukki waxtu benn wala fukki waxtu nga lekk tuuti lu xem juróom juróom wala waxtu nga lekkaat fenes bu lekkaat bu sa si mhm. waaye soo bëggee mu gën a wàññi sa yaram bi tamit sooy lekk tam dangay lekk lu i danga lekk lu tuuti lu xem bu lekk ba xëpp ba mel ni ami yóbbu bu lekk loo xam ne baaxul si yaram torop soo koy lekk tam bu ko lekk lu bëri te bu ko lekk saa yu ne you comme ça nga jël botan botani def ko si mburu ba bëri wala ngay jël ay um, cheese wala ay mayonnaise yu bëri wala ngay jël ay ice cream wala chocolate wala soow yu bëri feene yi you know wala pizza soo nekkee di lekkloo tamit torop soo dogee saxoor bi kon du du dox sa yaram wi du wàññeeku soo dangay def soo lekk lu bon tamit nga lekk ko tuuti but yeah intermittent fasting lu baax la si yaram docteur yi ñu ngi koy jàngale xat yi yëpp te dafay tax sa wi leer rafet te dafay tax nga lose weight soo koy soo si yàggee ay xat nit ñi si yàgg seen yaram yee lose ba ne coj waa soo ma nag defoon naa ko xatam bu ma luusee woon weight soo moom laa commencé xaar fi mu ne nii soo ren kuma tàmbali naa di lose weight euh, du ren sax de mat na ñaari xat léegi foog na waaw ba ma nexee di jéem a bugg a lose a and then fall out again xëpp na ñaari xat sax de waaye ñaari xat yi is even worse because ñaari xat yi feebaroon naa fi xëpp na xat ak léegi boobaak léegi mhm. ba ma fi feebaree woon xam corona bi first time bi moom bi corona génne xees tama xam ko boobu ba tey gëm naa ne corona la waaye tesuñ ko woon waaye nag xamoon naa sëqët bi déedéet xamoon sëqët bi si booba si booba waaye xamoon naa dënd bu fàtti ba mënumaa nokki am xamoon naa tànk yu métti yeeg you know gémmiñ gu lawet gi yeeg yeneen yooyu yëpp waaye gémmiñ gi lewatoon na waaye bonut comme nu bonee bu mujj bi boobu noonu bi corona xewee xees yàggut si laa ko xamoon bi ma agsee Angleterre fi yàggut waaye mënuñ ko woon a test ndax time boobu test yi dafa naqadee xam ba bugg a dee waaye bu yàggut nii ay ñeenti weer si gannaaw nii wala ñeenti weer lu teg xamaat naa ko ñu test ko muy corona waaw boobu moom xamoon naa sëqat problème bi gémmiñ gi lawet trop comme ku sibbutu waaw yaram yu métti comme sibru rek la xalamel daal waaye dafa xuute ndax wëcc yu wëcc yu sibru yi bokk si woon ak lox bu bëri bu sibru di def an staf waaye su ko paasee dañ ñuroo su suma yaram bi tamit wërul woon euh, daaw lu mat xat foog naa léegi mat na ko waaw xat mat na ko definitely xamoon naa fi kiit ni problème ni infection ba te doon fi lopitaan ñetti fan you ak tandat ñu wax ne naa dem si lopitaan bi bu set pour gars yi jox ma antibiotique gi pour clean suma kidney bi so ma doon dem foofu noonu bu set si euh, lu mat ñetti fan xaw ma ñeent waaw ñeenti fan parce que loolu di lañ ma génnee waaye dama doon dem ba xàjjuma bët bu set ma dem lii daf dee génnee graisse yi ne fii soo neeri ko def nii si yàggee daf génn soo toogee suba nga def ko soo xëyee suba soo sangoo nga def ko bëccëg nii tamit wala ngoon nii wala soo defut dara daal nga def ko waaye doo ko ne di def sa xar-xanam bi sa amee make up man black soap laa dee sangoo saabu bu ñuul black soap moom laay sangoo xadi yëpp fa baax si yaram baax si xarxanam mhm. ba pare am yeah dinaa leen wax tamit lu ma dee diwoo ay karité laay diwoo and stuff just to be dama dee defar diw gi waaye su ma ko xamul sax su jeexee sax dama dee just diwoo lu ne you know mën naa diwoo lii bas vaseline la lu ne lii laa ne di diw nii suma fees rek ma sañ parce que su sa yaram su répété bi ko yaa ngi lekk ay gerte yi di lekk fruit vegetable di naan ndox and stuff léegi da gis ne yow loo diwoo rek da baax you know but coconut oil tam dama ko dee diwoo dafa baax original one bi nga xam ne yaa ko jagaral sa bopp wala nga jënd original one bi mm-hmm. da nga ëttu coconut oil yu bon yi dañ bëri so fii mun nga ko nekk def nii tam paree nga def nii xar kanam bi so yes so suma yaram bi daa dëgërutoon ren bu baax si ñaari xat yi passé nii yëpp this is the word I'm looking for so moo tax munuma loolu laa bëgg a wax so moo tax munuma woon a serious si exercise bi you know ba léegi nii suma yaram bi is fine waaye dëgëragut hundred percent but dana suma yaram bi nu mu mënagul exercise bi dafa tax muy gën a métti tey sax loolu moo ma dal you know suma yaram bi mu ngi eh, tayal métti ko démb dama daw fukki minute démb mooy first time ma daw fukki minute bu ma commencé exercise yi ba tey démb mooy first time ma daw fukki minute non stop daw whole time fukki minute <laughs> it's crazy dama ko live on sax pour ma motiver suma followers yi yeneen jigéen ñu xem ni man ta give up foog ne ndax seen yaram mi duñ ko wecci yaram dan ko dee mën a wecci daf dee yàgg nag waaye danga ko dee mën a wecci you know bul give up su fekkee ne sa yaram bi nu mel da nga mu gën a dëgër gën a tóon bul give loo mën a def la waaye na daf dee jël time you know incha allah di ngeen gis weer yi ñëw nii di ngeen gis suma yaram bi nu muy gën a seepee man li defoon naa ko ay xat si gannaaw boobu yi wàññeeku soo yee la so um, sa xar bi soo ko raxasee ba pare ba set nga mun nga koo suudu suudu mooy nga baxal ndox mi nii suudoo muroo tawel nii suudu about five minutes five ba ten minutes daal five six seven minutes yooyu noonu mhm. su dee ngaa soj nga def si tuuti mentelato wala nga def si peppermint oil peppermint oil diw di dafa mel ni ndoxam mentelato daal mhm. ñaari toq rek nga suudoo ko fay génnee soj bi waaye su fekkee ngaa bëgg sa xar kanam bi rafet semaine bu ne deel suudu benn yoon wala ñaar boo sojut sax waaw fay tax doo xam soj te mun na laa dimbale si feebar bi doo ko xam ba pare fay sa xar kanam bi rafet nga mel ni gune gu ndaw mooy suudu dafay mhm, leeral sa xar kanam bi so ma li ma dee diwoo karité dama ko dee jël jaxase ko ak coconut oil ma def si vitamine E oil su ma ko xamee suma vitamine E oil bi dafa jeex lu yàgg war naa koo jëndaat waaw ba pare tamit su ma xamee like jojoba oil wala argan oil mën naa ko see jaxase mbala jos ma diw yooyu noonu si face bi loolu kese parce que loolu tam dafa dafa baax si face waaye loolu duma ko dee jënd saa ne dafa seer te jaru ko so beneen bu ma dee xam lu saa yu ne te mu baax si yaram te mooy um, extra virgin olive oil bu baax bi boobu tam dafa seer anyway but seeru comme diw yu ma lay wax ni jojoba oil and um, argan oil yooyu ñoo gën a seer danaa si bind tur bi so um, soo jëndee extra olive oil bu baax bi wuu dafa baax si yaram mm-hmm. danga si dee mën a defar massage oil sax next time dinaa ñëw woon leen noo si dee mën a defaree massage oil mhm. so léegi boobu noonu moom ngay jël jaxase ko ak diw diw ngalam gi def si coconut oil bu baax bi original bi ba pare um, soo xamee tamit aloe vera gel original. sorry guys suma vidéo bi suma lifin bi moo moo ring alam bi su ma ganaar gi may togg moo ñor damay ñëw dem jëli ko one hour bi jot na. soo ya soo defee diw jaxase diw yoonu su may jaxasee ti diw next time dinaa ñëw fi ma won leen ko ok so dangay def sa uh, extra virgin olive oil nga jaxase ko karité soo xam mu ne am karité bu baax te karité bu baax léegi neexut a xam de parce que ñi dañ ko dee tappale àdduna bi léegi fay a jeex you know waaye face mask tamit dafa xam face mask yoo xam ne dama ko dee def yenn yi si bëri si kër gi laa ko dee jëlee jarul jënd mooy li nga xam ne danga koy diw sa xarxanam bi nii pare nga bàyyi ko ba mu yàgg nga raxas ko pour xarxanam bi rafet soo yee su ngeen buggee next time su may def ma defal leen yu ma dee def yi nga ne si kër gi nga koy jëlee jaru koy jënd yaa ngi ko xamee si waañ bi si bëri soo mun naa leen koo won waaye right now dinaa leen wax rek tuuti yi nga xam ne mun ngeen koo def su fekkee seen xarxanam bi rafet rafetul maasaloo góor a jigéen mun na koo def su fekkee da nga bugg sa xarxanam bi rafet te maasaloo number one lu ngay diw sa bi mooy ah, number one lu ngay raxasee sa xarxanam bi mooy dangay jël bota different one la waaye naa leen waxal ñaar wala ñetti yii nii dangay jël bota soo jëlee tuuti bota def ko sa loxo bi fii jël tuuti sukur def ko sa loxo bi jaxase ko nii nga raxasee ko sa xar kanam bi nii ba mu set scrub scrub scrub scrub scrub du setagum bu amay tokki na ba <laughs> soo scrubee noonu ba pare about five minutes hmm? nga scrub ndànk bul scrub no ndànk rek def tuñ yi def everywhere def loxo yi sax everywhere hmm? soo paree rek nga sangu mun nga ko def si bi ngay seetaan sa phone bi nii seetaan dara whatever oo jos nga def ko rek taxaw soo paree nga sangu loolu soo koy def semaine bu ne benn yoon sax wala ñaari yoon soo toogee ñetti fa ñeent nga def ko sax xanaa bi dina rafet ba mel ni biddiw incha allah beneen bi mooy nga jël kafe ah café gi mun nga koo jaxase again ak bota bi ak sukur mbala nga def si coconut oil ak sukur ak café gi ak soo xamee bikin soda mooy carbonate bi ñuy def bu weex bi bu xam nga carbonate dafa am bu weex xam beneen bi bu weex bu xalamee ni sukkur xaw ma xorom xaw ma boobu laay wax ni tuuti nga def ko si soo ko xamul tam doon woori defal ko coconut oil bi rek ak sukkur ak café waaye soo amoo nga boole ko si tuuti ah jaxase ñett yooyu noonu ah coconut oil bi café sukkur ak carbonate wala coconut oil café ak sukkur hmm? nga def ko si pot jaxase ko wala def ko sa loxo bi nga again scrub ko ak face bi ak loxo yi everywhere su la neexee nga scrub ko sa yaram bi yëpp dafa baax and nga raxas ko waaye saabu bu ñuul bi laa dee sangoo black soap waaye nag soo xamee beneen saabu tam baax na bu laak soap man moo baax si man so um, leneen li nga xam ne mun nga koo sa face mooy léegi soo raxasee face bi ba noonu nga suudu soo suudoo si ndox mu tàng mi nii hmm? soo paree nga layandee sa face bi ndox mu sedd ii da nga ji génnee ndox mu sedd ci fridge bi wala nga layandee ko ndox mu sedd bi nga xam ne moo nekk si pompe bi hmm? soo paree nga jël sa face bi soo xamul ndox mu sedd bi sax is suudu bi rek baax na waaye soo paree nag dafay ñaq soo ko suudee dafay ñaq tooy xeeb na nga ko layandee ndox daal kon génne ñaq mhm. soo paree soo munee xam kakumba wala tamaate doom nga diw ko sa face bi nii bu fresh one bi nga diw ko sa face bi wala kakumba nga xar nii diw ko sa face mhm. wala pompiteer sax nga xar ko jël ndox mi dafay dafay tooy xam nga boo ko wala nga wal ko mbokk jël ndox mi diw ko sa face bi nga bàyyi ko ba ay five ten minutes nga layandi ko soo paree nag nga diw ko masaay ko comme nu ma la wax ni beneen bu nga xam ne dafa baax si xar tam mooy maalo sungu fi maalo bu ñorut uu ak baax nga jël ko jaxase si tuuti meew def si lem wala boo xamul meew sax nga jaxase ko ak lem rek diw ko sa xar-xaram bi boo ko raxasee ba pare noonu ba def yi ma la wax yëpp bàyyi ko ba ay ten minutes nga layandi ko soog a diw sa diw booy diwoo nii ba pare massage wala jos nga diw noonu bàyyi waaw loolu tam dafa baax si xarxanam dafay tax sa xarxanam bi rafet lem gi tam boo ko xamee lem ak neen gi rek sax boo raxasee xarxanam ba mu set nga diw si lem gi ah soo ko suudoo def lu ma la wax noonu ak na mu tàng bi soo paree nga diw si lem gi noonu bàyyi ko ba 10 minutes 15 minutes nga layandi ko soog a diw waaw yii yëpp yu ma la expliqué la yëpp boo koy def semaine bu nekk semaine bu ne nga def ko ñaari yoon mbala benn comme ça boo ko defee nga toog ay ñeenti fan nga defaat ko waaw soo koy def sa xarxanam bi dina rafet incha su yàggee plus ngay lekk ndox di naan ndox di lekk fruit and vegetable soo ya loolu rek laa leen bëggoon a wax tey parce que channel bi moo ko ubbee ba tey waxaguma leen mbiri xarxanam bi nooy def ba rafet boot ya xendu leen jàmm ma dem génnee gis ma ganaar yi an dinaa leen ngi incha allah beneen yoon léegi um, suma channel tiktok bi like I said dafa mel ni dañ ko block dañ ko report or something because uh, démb dama fa def setting boo xam ne démb la wala burki démb si guddi dama fa def setting boo xam ne su nit commenté dama am pour gis comment yi comment yi dafay dem into hide like TikTok dafay nëbbu comment yi hide ko nit ñi dañ ko gis ba man ma war a xool comment yi nga xam ne yooyu laa bëgg nit ñi gis ko ma bës pour publish ko because nit ñi dañ fa dee ñëw di saaga te bëgguma nekk di def vidéo di saaga nit ñi you know di saagaxaat nit ñi you wala may jël seen saaga yi di ko def si si vidéo yi you know su man may saaga sama bopp yee soo dama leen dee block rek you know so loolu dafa tax mu jéegi ba ku ma nit waxee dara lu ma war a wax sax wala loo xam ne rek xooluwuma borom ndax kii ma dee saaga or not or something rek dama dee block block ñeneen ñi you know so <laughs> so xaw ma ndax nit yi loolu tax ñu report sama channel bi wala jos yeneen wax yi ma waxut moo yu may wax moo leen neexut wala jos dañ jealous because dama ñëw TikTok yàggul rek ma am lot of followers so it's not ñeneen nit yi dañ dee jealous and just sick to be honest so maa leen di ñaanal ñu tane but I don't care about that TikTok YouTube moo gën a quality TikTok téeméeri junni yoon YouTube ñoo la dee fay not TikTok so TikTok bi it was just dama fa doon def ay vidéo di am foon plus di jàngalaale nit ñi comedy and then jaayaale suma yére but I can still do it YouTube you know xam naa ñaari channel fii nii suma channel bu njëkk bi ak bi te ubbi naa TikTok mooy Amie Olof 2 pour so yeah but channel bu njëkk bi loolu loolu moo xew su ngeen gisul ma pause rek xam leen ne loolu moo xew you know so yeah xaar ma dem génne suma ganaar yi waaye du comme bi ko dama ko lëmas si tin foil bi so it's moo tax but yeah maa ngay dem guys naa leen gis beneen yoon koo xam nga face massage bi nga waxal ma so face massage bi ni koy defee mooy da ngay bës si fekkee danga xam fii ay graisse yu mel ni man bu koo wàññi da ngay massage kon nu may defee fii soo paree nga def nii mën nga koo massagé nu la neex rek comme ça fii nga massage ko daal ndax ras-ras bu muy def nii mu wàññeeku you know mm-hmm. soo massagé fii ba pare nga def nii su neexee tam nga def nii pare nga def nii fii tamit di same thing nga def nii pare nga def nii wala jos nga def nii rek pare nga def nii sa sa lifi nii moom ngay def nii mhm. fekk yaa ngi diw mun ngaa use karité di ko def wala nga use um, vaseline fay nooy neex a massage ba surtout boo nekk di raxas sa fiis bi ak sukkur bu la wax nii tey saa raxasuma ko ak sukkur gis naa def loolu lu mat semaine yàlla su ko ëpput jarul moo ko def saa yu ne su fekkee ne yaa ngi lekk lu baax di naan ndox di diw diw originally sa yaram bi dafay rafet already so you don't have to do it all fii nga def ko nii def ko nii fii tamit nga def ko nii so noonu la fii tamit nga def ko nii bakkan bi bakkan bi soo ko dee massage ñi def dee gën a nice suma maas yi ñorut massage bakkan bi rek sax kan bi boodat to be honest face massage bi sax du ma koy def saa yu ne kon suma waaye léegi laa ko jël serious incha in the next coming months ay weer si kanam di ngeen gis nu muy gën a rafetee incha so yeah hopefully yéen tam di ngeen ko def su boobaa ñun ñëpp ñu experience benefit bi and yeah dinaa leen gis beneen yow incha allah and leen jaamu bye jërë ngeen jëf <laughs>